njiitu réewum ci benn bataaxal bi nga xam ne des koo daal di fësal jët na daal fax ne jot na daal wax ne kat li nga xam ne mooy wàllum racisme moom dañ koy daal xeex fi nga xam ne moo ci réewum Tunisie ba tax na daal moom ma nga uh, xam ne ñoo daal di yaa uh, taxawal xam ne mooy uh, daal di yaa dajale lépp nga xam ne dëkkub africain yi la waaye tamit daal ci gën a liggéey ne daal am na bu nga xam ne moom la waa Tunisie am maanaam réew ba nga xam ne la jiite ak yenn réew Afrique yi ba lépp daal képp nga xam ne kat dugg nga ci réew moomee ñu daal yombala sab nekki na ba tax na nee na mbirum racisme bi nga xam ne daal moom muy yëkkati di ko wax loolee amul la ba tax na fësal na ci ay ndogal nga xam ne daal mooy ak carte nga xam ne daanaka ci at la daal di yaa delluwaat ci étudiants yi loolee sax dañ ko gën yokk waaye tamit daal dina fexe daal ñu gën leen a yombalal ñu di koy renouveler seen documents yi nga xam ne moom moo tax ñu nekk ci dëkk boo bële waaye tamit gën na yaatal période bi nga xam ne mooy période de séjour bi nga xam ne ci ñetti weer lay jógee dem ci juróom-benn weer waaye tam ñu yombal leen opération départ yi nga xam ne mooy ay départ volontaire maanaam maanaam ku bëgg a dem lëkkaloo ak ki nga xam ne mooy réew ma la toogal foofe ca Tunisie ba tax na nee na ñi nga xam ne kat ñooy réewum africain yi ñoom kat ay mbokk lañu ba tax na daal li nga xam ne mooy payoor mi delluwaat ci wàllum amaan yi nga xam ne moo delluwaat ci ah, délai séjour bi le loole sax dañ koy gën a càmbaraat ne daal dina jël ay dogal xeex li nga xam ne kat mooy wàllum trafic humain waaye itam fexe ba ay campagne contrôle ñu daal di koy mën a amal te képp nga xam daal bëgg ci lu leer te bàyyi ko ah, yenn ci ay réew africain yi nga mën a woote ci ab numéro vert loolee daal bu fekkee ne say àq ak say yelleef dañ ko daal di salfaañe ne daal waa Tunisie du ñu nangu mukk ñuy xoxotal képp nga xam ne daal ci Afrique nga bokk wala sax ñu lay def naka sudul dul noonu te noonu léeg-léeg moom duñ ko seetaan.